alors euh, temps bi ñu amoon jeex na mais pour terminer rapidement sur un dernier point muy la euh, l'affaire Sweet Beauté uh-huh. euh, confrontation bi nga xam ni ñu bëri ñu ngi ko doon xaar wala bokk ñan ñi ñu ngi ko doon suggérer doon ko bëgg c'est fixé entre Ousmane Sonko et son son accusatrice Adji Sarr le 6 décembre Euh, ah. procès boobu aussi bon je vais pas dire procès euh, face à face boobu y a il euh, ay risques yu ci mën a am comme ni ñu koy yàgg di interpréter c'est un dossier boo xam ne soit il est il vide mais il peut engendrer des conséquences sur le plan social politique. noonu nga ko jàppee. xam nga loolu rek moo lay wan nii. Mhm. il y a entre le peuple et son système judiciaire. Mhm. dëkk bu mel ni France ku ñuy wax Nicolas Sarkozy jiite na leen ay at. tey jii yoon da koy woo. Mhm. ñu bëri duñ ko yëg sax day jóg dem wuyu ji. Mhm. bu paree <laughs> réglé yi muy réglé. Mhm. mais ñun bu ñu demee ba benn citoyen ci ñun yoon bu ko wootee. peuple ci boppam moo ko naan soit bul dem wala booy dem dañ lay bunge parce que ca ka ngay dem wuñ la wóoluwuñ ko kon donc te kookee moo war a rendre la justice au nom de ce peuple. Euh, le cas Ousmane Sonko nous révèle. la fracture qu'il y a entre le peuple sénégalais et sa justice mmh. ou son appareil judiciaire. Première grille de lecture. Mmh. Deuxième grille de lecture, ñaari hypothèse moo mën a am selon mhm. les avocats bi moo ko liiree ñu dem juge bi ne bu mu leen dégloo ba pare mhm. déglu ña ca taq yëpp wala ña ña ca wax ñëpp ba déglu ñaari ndeyu mbill gi moom mu ne lii daal jarul yóbbu ca atte attekat ba nañu gas lépp suul yëfee jeex fa non lieu moom la ñuy tuddee non première hypothèse mm -hmm. hypothèse muy bu nga leen dégloo ba pare ba déglu ñañ ci tudd ñëpp ñëpp yëf xaw naa lëndëm léegi dem leen ci attakaay ba ñu àtte leen ñu yóbbu ci jugement euh, ordonnance de voilà ñu ordonnance de renvoi dem ñu dem àtte mhm. mais man li li ma yàgg a wax ci dossier bi mhm. en tant que simple citoyen euh, ci li ma jàpp d'après euh, récits yi les différents récits mhm. moo xam récit journalistes yi récit réseaux sociaux euh, récit acteurs politiques yi euh, récit débat public bi bu ma tàngaatee récit yooyu yëpp war ko bindaatal sama bopp damay jàpp ni sur la base parce que jàng naa tuuti droit mhm. sur la base du droit avec le chef d'accusation mhm. ou d'inculpation kon appelle viol eu égard ak preuve yi ñu jot am nii dana xaw a jafe trop nga condamné ci Ousmane l'accusé Ousmane Sonko pour viol pour viol du point de vue juridique du terme pour viol laneen nag moom laneen la hmm. mais chef d'accusation bi viol la wax te yaa les éléments constitutifs du viol hmm. te loolu ak fii ci dana dana jafe maintenant léegi Euh, baneen mais comme loolu procès la doo ci mën a àddoogum parce que procès ça dire que affaire bi jeexagul mm-hmm. mais fi ma bëggoon def taxaw seetlu mooy suñu demee juge bi nee ne non lieu léegi nag suñu demee ni non lieu ça veut dire que am na ci euh, onze boy nañu ñoo ci gaañu wala quatorze quatorze am nañ ci quatorze xale yu gaañu am ci ay destruction de biens publics presque ça nous a fait perdre presque les gars ont dit cinq pour cent de croissance public comme privé voilà très bien ci ci période boobu trois ou quatre jours yooyu mm. en termes de destruction ni activité économique yu taxawee affaire yu perturbé wu euh, les gens l'estiment à presque zéro cinq euh, zéro virgule cinq pour cent euh, de point de croissance mm-hmm. mais loolu lépp mënuñu ko passer par perte de profit grand ñu dem ba nekk au bord de la guerre civile ñu dem ba quatorze booy dee au champ les intérêts français ñu yor mais les intérêts privés Sénégal taxaw tém bi pendant trois jours kenn liggéeyul ah kenn jàngiwul ñu ni loolu lépp kenn du responsable non c'est l'État maintenant qui devient responsable xam nga lu parce que ce qu'on appelle en management le risque stratégique mhm. en ce moment c'est l'État qui endosse la responsabilité civile de tout yi fi jot a am. Mhm. bu ñu waree indemniser booy yi booy yi faatu état la war liñ fi jot a yàqal yëpp état moo koy fay attention parce que l'état mooy en dernier ressort. en mhm. dernier ressort ki war a veiller ci yooyu yëpp bañ au cas où ñu ni sans suite c'est maintenant la responsabilité civile de l'État de l'État qui est engagé fii dafay mel ni comme mineur mhm. mineur su defee lu mu war def c'est la responsabilité des parents ou de celui qui en a la garde mhm. fii nag ci cas yi demee nii bis bu ñu waxee non-lieu donc l'État warut a daw l' état ne doit pas se substituer l' dafa war a taxaw endo euh, endosser la responsabilité civile hein, de tous les faits dommageables qui se sont causés durant ces événements mmh. ah état def de toute manière on ne peut pas condamner l'état comme disait le juriste euh, euh, personne n'a jamais déjeuné avec l'état mais ça. chaque jour on sent sa présence de par sa puissance. d' accord alors temps bi ñu euh, cërale woon jeex na takk. Uh-huh. Euh, ñu bàyyi la rek nga tàggatoo Siré. waaw mais di leen sant di leen gërëm. Mm-hmm. Euh, di ñaan d' abord ci ñaari affaire laa bëgg a daanale. mooy mm-hmm. affaire ñoom Pape Alé ak xale yi ñu jot jàpp yëpp. ak euh, mag ñi sax ñoom Cheikh Omar. Euh, Diagne euh, Diagne ñoom Karim. Mm-hmm. ak xale yu Pastef fii ñi ñu mujjee jàpp ci lu ñuy tuddee délit d'opinion ou délit de presse disons-le comme ça. waaw Ousmane Diagne et les voilà président man en tant que candidat déclaré góorgóorlu yi man dama lay ñaan jëmuma sax xool ku tooñ ak ñee dama lay ñaan. pour apaiser euh, situation bi euh, loo ci mën a def nga def ko ci ndax euh, njiit kilifa la mm-hmm. te kilifa bokk na ci benn critère boo xam ni ku dul kilifa doo ko mën taxawe doo ko mën a taxawe te séntuwuñ ci ku kilifa mooy jéggale ak jëlale mhm. euh, mooy euh, pardonner mooy baale mooy xam bacca mhm. bokk na ci li ñuy nawee kilifa sa capacité de dépassement waaw trait de leadership bu am solo la yow nga doon kilifa ma tooñ ñu war maa teg ci yoon jéggal ma du wàññi sa kilifteef ci man au contraire da koy gën a yokk ndax Souleymane Faye dina wax ni doole yërmande lay gën a jëriñ ko dóore kon donc président Macky Sall fi mu toll nii moom yi jaxasoo na de jour en jour affaire yi di gën a jaxasoo euh, buy jaxasoo nag yow en tant que comme yaa ñu njaboote ñun ñëpp Euh, xel yëpp bët yëpp ci yow dañuy tourner euh, pour di la ñaan nga apaiser tension bi te nen rek nga koy mën a poser mooy euh, jéggale jaru ñuy reveniraat ku tooñ ku def ak yooyu comme yaa njaboote ñëpp rek yow jàppa ni ñëpp say njaboot nañ rek quoi loo ci mën nga def ko comme ça ñu retrouver waat quoi parce que Euh, ñu ni neen la daal ah ñu ni neen la d'autant plus que ñooñee euh, ca lañ leen di toppee euh, du faat bakkan du def loo xam ni Sénégal da ciy taxaw mm-hmm. boobu mooy bi ma doon tàggatoo